maa ngi nuyu ñi nga xam na ñoo représenté suñu borom ci kaw suuf ku leen xeeb ñun xeebuñu leen ku lañuy saaga ñun dañ lañuy naboo ku leen sànni ñun dañ lañuy for denc ku lañuy tuutil ñun yëkkati leen ba ci kaw muy suñu xalif généraux yi ñoo leen bëgg ñoo leen fonk ñoo leen def si suñu xol sans yéen ñun duñu dara xalif généraux yëpp di ko commencé bay say weyu tànk Cheikh Ahmed ñas Niass alquran fii ci Léona Niassène xalif général bu Kaneen xalif général bu Mérina l'intellectuel Mawlana Cheikh Mahi Niass yàlla guddal fanam xalif général bu Ndorong bu suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu yal na yàlla guddal fanam di nuyu waa jàngo bi waa di nuyu xalif général bu Tiwaawoon Mawlana Sidi Aboubacar yal na yàlla may ko téeméeri at ak wér waaye di nuyu. xalu général bu Touba di mbégte borom reetaan bu neex bi borom béccaa bu rafet bi sëriñ Mountakha waaye di nuyu xalu général bu Laayeen yal na yàlla may ko téeméeri at xalu général bu Njaasaan waaye di nuyu bépp jaamab yàlla ak noo mën a sant bi nga xam ne jaamab yàlla bu yàlla gërëm la di nuyu bépp jaamab bu safaanu di ko ñaanal yàlla yalla ko yalla tek ci yoonu siraatal mustaqiim ndax ñëpp yalla lañ bindil sa bu boné lu mbon bon sa la ku ko laal laal la kon njabootu yalla yi ku ci bon yalla lañ mom. su yónnee ku ci lañ def. di nuy toute la presse nak il fait très chaud à Kaolack moo oo ngeen bay seen yitte ñew ñew bëgg wasara li may wax. lu ma toog toog li ma fi jënd yépp soo la ñëwuloon kenn du ko xam ndaxte kat wane lu baax moo gën fuuf wane lu bon su ma déggee ñu ne nit yaa ngi joxe jërëjëf Cheikh yaa ngi joxe lu tax nga koy wane lu tax caméra kooku dafa déggul yàlla am na ñii nga xam ne. ñemuma wax ñu bon lakk bon ak ku baax fa yàlla eh, ñi nga xam ne ñu ngi def la promotion ci lu bon di wane ne ba ñëpp suñ xale yi fooy lu bon a baax ba lu bon dañ ko banaliser ba lu ne waaye neex wax lu neex waay jëf di weerante di waxante lu bon di am ay vues yu dul jeex waaw ñu ñi bëgg yàlla bëgg yonent bëgg wane lu baax waaye waaye waaye waay ñun ñoom lu mu leen jaral ba mu ba mu bon war nañu jaral ba mu baax kon ñun nañ ko wane su fekkee nu wane xaraam na yàlla du jël Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam taal ko wane ko fépp kon wane araamul waay ndax yàlla ñëkk wane yonent yàlla Muhammad mu yërmaande jaam yi wane ko fépp te soxlawul journaliste soxlawul promotion soxlawul publicité te du fay ba pénc bi yàlla kon maa ngi gërëm journaliste yi. yàlla moom seen fay yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla garanti yàlla musal leen ba doo juum yàlla boo contre kenn lépp loo ñuy liggéey na nag te yàlla rek tax ci barke alxuraanu karim maa ngi nuyu militant yi duma faral di wax militant ndax man awma ay militant ay soppeek àndandoor samay moroom samay xarit àndandoor bokk ma ne même komba moo fi nekk kon maa ngi nuyu sama collaborateur ma ngi nuyu sama xarit ma ngi nuyu sama ni ngeen ma soppé gis naa ko ni ngeen ma bëggé gis naa ko su fekkoon alal nga ñuy andal do leen andak Ousmane Mel ndax ya que des milliardaires bu ñëwé dem lek ngeen dem nañ nañ lek suñu wala ci xaaliss bi dem man damay taqalee ci ci cofeek ci man weesu na waaye soo gisee jërëjëf président Macky Sall am def loo xam ne bu ko defaloon buñ taxawee di wax ñu ñu ne jóge leen fii doo leen fekk lew na ñeseen di pays maam Alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu taala anhu lew nekk pay rëy ay kàngam dëkk fi maam Alaaji fii la tëdd maam Xalifa fii la tëdd doomam fii leen tëdd gars yi di romb lew na ñeseen bu amee ñu yónnee bu ziar amee ñu yónnee waaye ci reñu président Macky Sall ba mu ñëwee ba ci waa lew na ku ci benn ni Alaaji Abdoulaye Niass bu maam Khalifa jàmbaar jooju génn këram joxe jumaa ji addi yonent yàlla Muhammad ñu tabax su jumaa ji def lu rëy jaayanteeg yàlla jaayanteeg yonent bi jaayanteeg Cheikh Tidiane jaayanteeg maam Alaaji Abdoulaye jaayanteeg bàyyi maam Khalifa génn këram joxe clan gi fa la njëkkee ñu waxtu bi ñu ñëw ah ña topp ci moom jaayante ba dem def lu ñu mën ba dem waaye alaaji Omar Niass Khalifa ñëw def li mu mën jaayante jël alalam def ci jumaa ji def lu mu mën ba yàlla oo mu dem ñibbi àjjana sama waa ji ñëw sama waa ji sama waa ji ndamam ci gàcceñ ci waaye waa ndam kese la alaaji Ibrahim Niass ibnu Khalifatu Muhammad Niass Ibn Alaaji Abdoulaye Niass borom penc mi borom penku bi borom kër yi ku yaatal jumaa ji def ci alalam président Macky Sall seet si ko waaye nag dañ ne booy àndal da àndak ànd ku baax ndax boo ànd ku baax moo lay digal lu baax ba mu loolu nag mi ngi ànd ak ministre le ministre ba sar Sarr mi nga xam ne léppam diine la léppam yàlla la léppam bëgg lu baax la waye leppam bëggu ndamu président Macky Sall ñu ñoo fi ci Léona Niassène mu ko président nañ dem ba yobul ci Alhaji Ibrahima président ne ko ah Diène ñun de ah, temps bi da xat comme de temps bi xat nak nag te ñoo dem ba benen mu ko président Alhaji Ibrahima boko ko jéggee sa mbir du bax man Diène Farba ma la ko wax baye sa temps lo xat xat xat xat nga leew Léona Niassène Alhaji Ibrahima Niass borom baatin la Alhaji Ibrahima Niass borom sur la mu defal la suru suram boobu noonu nga falu doon président président Macky Sall ku déggal Diène Farba bala ñu ànd ñoom ñaar ñëw ci El Hadj Ibrahima El Hadj Ibrahima defal ko suram ba na ko Macky mooy Makka Macky mooy Makka te Makka fa la ñëpp dem kon Macky ci kanam falu nga waay président Macky na ko dinaa la awu su jumaa ji nag ndax xam naa ne sàng nga jumaa ji. xam naa ne jumaa ji defal euh, euh, euh, diw nga ko tocc dinaa ko solo yére defal ko parfum te ni nag bu solo bu sango diw waaw bëgg naa solo yére kon yére am na solo waaye boo solo yére ba nga xeeñ parfum bu neex kon lew nañu seen parfum bi président Macky Sall la lew nañu seen yére bi président Macky Sall la kon loolu war naa tax ñu ñu dëkkee lew na ñu sant président Macky Sall bay dóori pooj tey ku fi ñëw ak koo mën a doon boo tegee sa tànk yaa ngi ko teg ci liggéey président Macky Sall kon président Macky Sall jëf ñu ngi lay jaajëfal ñu ñu dekkee lew na di ko liggéey tey jii bu nekk loon yow ñu am fi xas bu nekk nekkuloon yow ñu am fi gàcce waaye ku mën a waxit it da ngay sëgg di wax rek waaye bu bañ wax ndaxte yonent yàlla Muhammad moo la gën gën sa baay gën sama baay gën sa yaay gën sama yaay ndax yonent bi lu ne la def waaye amoon na ay baatu ginnaaw amoon nañu ko contre mm, yonent yàlla Muhammad makk lañ ko sonalee ay waajuram ay ay mbokkam ñoo ko njëkk sànni kon boo defee lu baax feeg ñi ñaa ngi naan déet ñi naan waaw rek xamal ne mi ngi baax waaye nag ñu ëpp ne waaw ñu gën a baax la puissance c'est le mouvement MJKDF 2S na Léona et MJKDF 2S a di oui o président Macky Sall di la wax jërëjëf xalifa général bi nee na la jërëjëf Alaaji Ibrahima nee na la jëf toute la jeunesse de na fii MJKDF DSS nee na la jërëjëf kon président Macky Sall ñoo koñal waxuma wax bu ñaaw mais président Macky Sall soo leen bëggee mu am ndam dafa am lu ñu koy sargalee parce que am nit ñi nañu bàyyi meeting yi ci stade yi nañu bàyyi meeting yi ci koñ yi ñu bàyyi sarga am amul chance ndax ku am alal am nit ñi nit ñi sonn ñu mais lu gën a ëpp sens mooy nga sargale président Macky Sall ne man mii maay ndaw Macky Sall yéen ñii ci koñ bi am na ndaw yoo xam ne am amaguñ liggéey lii laa sargale président Macky Sall utal naa le liggéey liggéey maa ngi sargale président Macky Sall yéen femmes yi ci koñ bi président Macky Sall moo ma fal jël naa enveloppe bu nangam maa leen ko financé ngeen ñu uti liggéey ba dootu leen maa ngi sargale président Macky Sall yéen ndaw yi ma fexe ba ut projet dix personnes bu ne ma jox leen dix millions wala quinze millions utal leen projet ñu liggéey noonu la ñu sargale président Macky Sall nu ñu sargale président Macky Sall mooy ngeen wàcc seen kaat-kaat ci koñ yi ruq-ruqaat yi dugg si ñoom di di wax ak askan wi ndax am mbooloo am xol yee ko gën kuy ziyaare ak lan mooy ziyaara ak kan lay ziyaara ak kuy ziyaara kan la ku ziyaare mi ngi tudd xalifatu Mouhamad Niass mi ngi mag la ci Maulana Cheikh al Islam radiyallahu taala nga ngeen koo xam ci Baye ñas magam la xaritam la soppam la kër gi benn la kette kenn mënu koo xam ñaar ndax dama Abdoulaye Niass moo bindoo noonu moo jël ay kuy jur leen kon maam alaaji moo bindoo noonu xalifa Muhammad ndax lii may bëgg nettali nii wër leen adduna bi yëpp moom rek moo am nana man Muhammad laa tudd yonent bi tudd Muhammad sallallahu sallam mu ne sama baay tudd Abdallahi yonent yàlla Muhammad baayam tudd Abdallah mu ne sama yaay tudd Amina yonent yàlla Muhammad yaayam tudd Amina nee na ma juldu altine yonent yàlla Muhammad juldu altine mu ne lii gën a garaaw nag. mu ne maam mu ne yonent yàlla Muhammad altine génn àdduna te mu ngi dund mu ne Seydina Muhammad salaahu alayhi wa salaam gars yi xanaa bëgg nañu yonent bi yonent bi la ñu waxal de mooy solution bi nga yàlla waxul ak kenn ku dul Seydina Muhammad bu ñu wax ci yonent bi dama bëgg salaahu alayhi wa ak seen caméra yi ak journaliste yi yonent bi mooy waa ji yàlla waxul ak kenn yonent bi rek la waxal dañ ne ku dëgg ku nay ku nay dëgg. mooy ñi nga dégg nga dégg Seydina Muhammad taw ko sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ne nag ku nay du foo gis ki ñu wax yonent bi taw ko wa sallam boo dee safara nga jëm doo dugg àjjana ah, kon dee leen koy wax mu ne yonent altine la génn àdduna mu ne man xalifa Muhammad altine laay génn àdduna ci dundam gaa yi altina jot mu génn àdduna kan moo ko ëpp ca ci yéen seen Muhammad te loolu ma ci xam moo gën a tuuti mu ne arab yi di lakk arab man Khalifa ñas maa leen gën a dégg arab ah ñu ne ko lu tax mu ne parce que ba ma nekkee liir nekk ndaw juddoo sama yaay ju sell jooju yontu yàlla Muhammad ñëw na gane si ma jël làmmiñam dugal ko sama làmmiñ moo tama ma gën a dégg arab arab yëpp. mu ne yonent yàlla Muhammad jël na dënnam teg ko sama dënn moo tax may géeju xam-xam foofu ngeen ñëw tey journaliste yi foofu ngeen ñëw tey kon kooku yal nañu ko yàlla fayal duma sëriñ jaamu yàlla bu xeebu laa buy tooñ yàlla jaamu yàlla bu jubadi waaye dañoo war a bàyyi di moomale ñii ñoo war a wax si yonent yàlla Muhammad ku koy wax amoo xel dof nga déggoo yàlla yéen bu leen ngeen war a nangu ne dafa am kër goo xam ne wala parti boo xam ñoo war bi ñi ñoo war a wax ci alxuraan ñi ñoo war ko teg yéen a ngi bëgg ñàkk fulla yonent yàlla yàlla ba mu ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah fa la maanu ku liggéey jariñu ku ñaq jariñu yàlla waxuñu woon benn sant muhammad rasulullah la wax ñépp bëgg nañ yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla def koo faral léegi xale ba xalifa loolu la xam sëriñ Touba yegg ko lu mel ni xeme maam El Hadj Malick yegg ko lu mel ni xeme saf-saf bu ko da Njaasaan maam Limaamu Laay suñ mag ñi loolu lañ xam moo tax duñ nangu kenn di tudd suñ mag ñi ñoo téye Sénégal lu am Sénégal dëkk bu mu amoon tàkk na mais Sénégal punkal yéen téye bam mu ba gis ngeen ay xutbu zaman lañ feebar yi accident yaa ngi bëri lu ne ngi bëri ngeen foog lu ko waral feeg baa zaman yi feeg baa ñetti yalla yi Sénégal waxuma président Macky Sall buñ booree Macron boolee euh, le président américain Joe bo bo bo les les plus puissants du monde indi le Sénégal Sénégal du mësa neex ndax yalla ak gaayam yi donc suñ bàkkaar yu la jeunesse la jeunesse man ngi la ñu oo maa ngi la ñu oo coono yi bëri na la jeunesse bëgg ngeen am dara ba ngeen fu ngeen dem ñu tiitaroo leen secret bi benn la da leen julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen julli bi doo leen tàllal loxo barki Cheikhu Tidiane ku dëkkoo julli ci yonent bi te sax ci yow billahi lazi laa ilaaha huwa duma yàlla duma yonent duma xutbu zaman duma dara soo amul dara billaay poñu ma na ma fenkat bi ku julli ci yonent yàlla Muhammad problème boo mën a am julli ci Seydina Muhammad mën na koo faj ak boo mën a am ci àdduna et donc maa ngi la ñuy sant ñu fas yéene nag sa Jibril yóbbu nag yii